tous les complexes et et et zalo et zalo la président Ousmane Sonko lim réussir daa yéeme barke alxuraanu karim le président Ousmane Sonko ak parti Pastef li ñuy réussir moom la kenn mësta réussir ci Sénégal waaw gars nekk ci daara ji te diggan dëkk diggante Dóor ak maanaam daf noo jëlee ci téléspectateur ak auditeur waaye yóbbu nu ci ay acteurs maanaam ñu participer ci débat public bi. waaw da ngay yor sa costume ñëw xooj ñëw toog ñu sol suñ turki njaareem ak suñu caay wala sunu laafa ñëw toog waaw ngay wax ñuy wax dëgg yàlla loolu dafa nekk liggéey bu am solo boo xamante se nii <laughs> le président Ousmane Sonko daf ko réussir léegi nag complexe yi ñoom ne neen niveau bi daa baa niveau bi daa daa baw daa o maanaam fi ñu taxawoon niveau bi daa gën a kawe daa jàll ca ësël foofu mu jàll nag dafa làqatu foofu foofu foofu gars yi karawaatu ak gars yi nga xamante si ni ñoo naan bi daa baa ñoom ñoo ñëw di xool néew bi ci baag yi di seet dem baa mais fekk ñu fa néew bi néew bi romb na fi mu nekkoon ma nga ca ësal toog <laughs> foofu boroomum xel moo fay yegg wallahi al asib moo te gis nga téléspectateur ak ay auditeur loolu jeex na ci ndongo daara yi léegi ay acteurs la doon dugg ci place place publique yi di di débat ci ci ci débat yi euh, débat vendredi yi ngeen doon def dañ ciy bokk dañuy wax suñu xalaat ndax réew mi dañ koo bokk te incha allahu rabbi li ma gëm sax mooy réew mi fi mu àgg maanaam dinañ fal DC def ministre ne wàcc na nangami kaamil bind na nangam jaar na bërëb sangam ak sangam tarbiyénoo daara nangam jaar na nangam ak nangam daa réew mi dana àgg foofu waaw ndax niveau niveau moo kawe fa mu egg moo yéeme lool <laughs> <laughs> léegi nag complexe yi ak defeyaay ak këtt geen yi loolu lañ mënta baal président Ousmane Sonko maanaam dafa réussir lu ama ama ama ama am solo <laughs> moo tax wax ji ñuy wax di di di wax suñ xalaat ci réew mi nii di participer wala tous les complexes et et et et quoi.